alxamdulii ñuy sant fii Seex Bamba tey ngir moo taxaw julli woon fa Ndar bañu sañ ko tey rakkam ya mooy sawetaas ci ñun mooy daba tey màggal ko moo di war ci ñun di ko sant tey biro bee fa Ndar moo atte mbër ya fa jaar ba wey ku ci dul Sëriñ Tuuba keroog si ñëwoon nga wey soldar sa ak waa tribunal keroog ñëpp xëy kañu naan borom ndar ñëw taxaw di ku yàlla jay ma nga mertanaa leen seen yàlla tey ku mu woo keroog président nga wax mbaane nga wey mu ni leen lislaam mu fay bu mu weesu tey tas jàkka yeeg seen daara yi bu ma kenn lay ku ni noo ku ni wii ma fay ko mu daldi xëy lislaam di jooy jëwey see bamba moo gàntal keroog yenu yee taxaw na ne may yàlla ñu ne ko li nga wax ay dëgg ku weddi ñàkk bakkanam ana nit ñi ana tawxiid ana wéetal yàlla sëñ Tuubaa da nahnu alladina la narusu abada ila bi rabbina huna duma xadda nun duñ wéeru ci gudul yàlla xamuñu gudul yàlla waaye may yàlla de ku ko wax keneen ku ne mën naa wax tawxiid mën naa wax bokkaale nit ñi ay sëriñ lañ gëm dañuy jaamuy xërëm kum neex nga wax ko waaye bi taxawee ci Sénégal jël jeesi teg jël karawaas teg laaj bakkan teg na maa yàlla kenn tontuwul ku lu Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Tuubaa yëmul ci tontu bi góor noonu ne maa yàlla si biir da doon ñaanam di jéggi mbooloo fa nekk ñu jox di xëcc bu mi naan ko toogal léegi jataay bi jeex sëñ mi naan ñaadam ñaadam ba fekk góor noonu général fi mu taxaw mu jël baaraam bi rokk ci diggante casquette bi ak jébi di sa nga xal bopp bi moom sëriñ Tuubaa naan ko kasabta mu dab yi lu mu xañu laa yëmul wasa tamutu incha allah comme ru ko xarit kàcc nga kàcc nga kàcc ku am jom kennal ko ku am jom wéetal ko ku am jom sant ko Serigne Touba. mu dellu see kenn jàmbatul boobee ba tey dugoon ak Serigne Touba dañuy nasaraanu tey xawle noo fi moo waral nuy bamba tey dugoon ak Serigne Touba ba tey jullikaay fay kon sant war kuy woote tey saa baaba tey ku fi xam keneen ku fi ñëw te jaar fa mu jaar ba wey ku ni mel amul feeñul ci ñii du ca gaaña wey bi mu tàmbalee bañ yaa ngi ree wey